mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen euh, fii ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Djirnda euh, dëkku Adji saar ñu ngi toog ak ay Aysatu ay Aysatu nuyu nañ la. waaw fay naa leen maa ngi nuyu waa TV di nuyu Sénégal di nuyu àdduna bi yëpp di kontaan seen ñëw bi ngeen ñëw parce que Adji Sarr comme ni ko ñëpp waxee maya la dëkk jànge fii man mi en tànk jigéen xam naa ko bu baax suñu doom la parce que fi mu yaroo fii jir na ñooñu ay doomu ndey lañ li ñu xam ci moom rek laa xam ci moom parce que aji moom xam naa ko bu baax a baax a baax mu nekk fii ak euh, yow nga gis ko mu màggee fii ba keroog muy dem ndakaar mu am lu bare loo xamante ni xam nga ko laata ngay dégg problème bi yooyu nga xam ci moom est-ce que mën nga ñu cee wax tuuti. parce que ñun buñ déggee problème bi dañoo jaaxle parce que aji fii la nekkoon yaroo fi yor fi yar bu baax parce que ni ko imaam waxee rek jër nag yi li ko dalee ñoo jor ba fayaa ko cent pour cent musulman lañ amuñu benn beneen religion bu dul jullit kon nag fii li ñu fi xam liggéey ak jom njàng kese lañ fi xam kon nag aji li ko dal nii def ñu metti parce que yarewuñ ko loolu ñi koy sosal nag xamuñ ko ku ko xam mooy ñii toog ni nga xam ne ñoo ko yar ñoo ko gën a xam parce que li fi dund dund ko Dakar Dakar bu dee dund na fa ay quelques années rek la deux ans trois te xam naa ne aji mënut a baaxee fii dem toog Dakar deux wala trois ans bon loolu mënut a nekk bu bonee ñi ko bonal moo ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko jël pour employé di ko dugal ci loo xam ne moom xamu ko yarewuñ ko loolu ngeen xam ne nag aji Sarr du nit ku bon yare wuñ ko loolu ñun waa jënd gi xamuñu loolu damay wax nag en tant que jigéen dégg naa député yu jigéen yoo xam ne dañuy ŋàññi Adji Adji nit la comme ñëpp jigéen la kom ñëpp dëkk Sénégal njaay gii Sénégal bi gis nañ fi lu ne lu gën a bon lii gis nañ ko fi li tax ñu koy siiwal nii nag dañ xam ne Ousmane ko politicien la grand politicien la nañ xam ne aji nit la comme ñëpp jigéen la comme ñëpp jigéen ñi dañ ko war a jàppale xam ne kii xale bu ndaw la xale bu ndaw bu majoré gu amul ndey gisul ndey gisul ku ko jàppale mu dem liggéeyi pour lu mu fajee soxlaam li mu dimbalee mbokkam bi li jot ko dañ ko war a yaram dimbale ko aji bonul ci benn côté man mi jigéen laa xam naa ko bu baax dafa ñëw sama place ba sonn ñuy waxtaan ma xam ban genre nit la bu bonee borom place boobu moo ko bon la waaye aji bonul ñi koy wax ne dafa bon nag ñi ko jiiñ ñu ne xamuñ ko bu ñu ko gisee benn yoon wala ñaar yoon te aji mënut a toog jir na 5 ans 6 ans 7 ans ba fi dem Dakar 2 ans nga bon loolu mënut a nekk waaw ah, loolu daal laa xam ci moom aji nit ku baax la ñi wax ne da aji dafa bon xamuñ ci moom daal. waaw audio yi sax dañ ciy taxaw tuuti ndax am na ci ñoo xamante ni yëkkati nañ kàddu ne euh, jiiñ nañ ko sàcc fii génnee nañ ko nit ku bon la euh, bi nga ko déggee yow en tant que jigéen euh, lan la la def. lu ma naqari rek. parce que man xam naa ne ndeyam a jur juruma nag waaye xam naa ne bëgg naa jur comme ku mel ni Adji Sarr bu ma juree tamit duma ŋàññi benn doomu jàmbur dama koy suturaal bu defee loo xam ne du noonu dama koy suturaal kon nag nañ suturaal Adji jàppale ko ñun jigéen yi nga xam ne kii xale la amut doole dañ ko war a jàppale ci lii mu nekk nii waaw loolu la. lan ngay wax euh, askanu Sénégal ak ñi lay seetaan. waa ñi may seetaan. dama leen di xamal ne Adji Sarr nit ku baax la daal li ma lay wax ni Adji Sarr nit ku baax la nit ku jullite nit ku xam boppam nit ku bëgg boppam nit ku respecté mag loolu xam naa ko ci moom bu baax na ko Sénégal jigéen ñi jàppale ko Macky Sall ak gouvernement am nañ protéger Adji Ousmane sonk ak mbooloom nañ bàyyi aji Sarr ñoo ko tooñ ñoo ko dugal ci loo xam ne ñun xamuñ ko waa ñiy wax ne ñun séeréer yi xamuñu dara ñëw ngeen jiir na ba xam gis li fi nekk. Mhm. Sénégal kenn dofatul Sénégal ñëpp a jàng li nekk dakaar mu nekk fii parce que fii lu ngi waa dakaar xam ñoom ñun loolu lañ xam lu nguur gi xam ñun xam nañ ko parce que ñun dañoo jàng di dox ci développement di dox ci culture ak aada ak cosaan xam nañ lépp ñun kenn fii kenn dofu Sénégal kenn dofu fi. Mhm. jërëjëf cant ngërëm ñel na la. da ngeen ko ni mu ko waxee noonu mbir mi jigéen ñi dañu war Euh, taxaw taxawu ki nga xamante ni moom mooy seen moromu jigéen di Adji Sarr ndax mbir mi mbiru jigéen la ak góor donc bu fekkente ne lu mel ni am na euh, mu dal ci ndoddu jigéen waxuma la sax xeet bi mu bokk waaye képp kuy jigéen war na mën a taxaw ngir euh, mbir mi jaar ci yoon ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam.